naqar ak tiis bu metti wàcc ci kaw umma islamique bi rawatina murit yi mu di génn ko àddina sëriñ Abbas Mbacke nekkoon xalifa daaru muxti ndiki tey ci alxemes ji yamoo ko fanweeri fan ak benn ci weexum décembre ci la ko suñu borom daa di moom ginnaaw ci ab tawat gu mu amee woon ba ñu yóbbu woon ko ca ndakaaru ba jotoon ko fa hospitalisé mu daal di ñibbisiwaat daaru ñu teg ci ay fan yu néew ci la daal di làqu ci fàttali Serigne Abbas moo nekkoon ñeenteelu xalifa ci ginnaaw bi mu wutoo Serigne Cheikh Khady Mbacké ci boppu xalifa gi Serigne Abbas Mbacké nekkoon nit ku sell bëggoon loolu communauté musulmane rawatina murid yi équipe bu ak ci yépp di ko naqarlu tey di ko jaale murid yi ak njabootam gi yépp mu melni ne 2020 bii daal dinay tàggatoo ak naqar bu kenn dootul fàtteeti rawatina ci murid yi